437 77 14. Marathon international du Sénégal. Un événement Sewell. Concept est 5. L'actualité sportive revient sur la DTV à travers votre émission Débrief. Tous les sports seront au rendez-vous le basketball, le football, le handball, l'athlétisme, les arts martiaux. Bref, c'est tous les sports sur la DTV à travers votre émission Débrief. Application DTV. La magie de la télé vous suit partout dans le monde avec son nouveau service disponible sur les supports Windows, iOS, iPhone, Android et tablette. La DTV sous vos yeux, partout, à tout instant. Avec la DTV, vivez la magie de la télé. yaa ngeen jëf ci ànd beeg ñun ci seen télévision du TV 19h jot na xabaaru maraîch la ca gën a bokk na ca ni coowal contrat yi pétrole ak gaz ci biir réew mi doxinu maître maam Adama Gueye coowal fichier électoral bi mam Mbaye ñaar ci boppam ma ngay tontu opposition bi la mu gis mooy ñii di kujje gi dañoo bëgg a yëngal réew mi daañu si ñëw ci biir xabaar nu mu gën a ca bokk lu jëm ci lu jëm ci politique booy ba tey jàpp lu ni sax kii di El Hadji gàkk Gakou moom nee na ma ci Sall dina daanu bu nu àgg élection présidentielle 2019 jàpp na ni ak lu mën di xew daal sàcc élection gi dong la mën a def ci ñu ngi koy xaar daañu ci ñëw ci biir xabaar yi tam dana ca bokk sitting di ab togaanub xundu professeur PS yi xëy tey wane seen na xol ci buntu ministère bi dénk formation professionnelle lañuy sàkk mooy formation diplômante dana ca bokk itam bëccëg bi nu jagleel euh, jabet Sénégal ci boppam dana ko xeex lépp lu jabet ci biir réew mi lañu gis nag mooy njaboot gi am na nañu wàll bu baax ngir dimbali ki amee joju jàngoro nu su ko mën a jàppale daal ñu ci ñëw ci biir xabaar nu si faram fàcce gi

loolu lépp la maam Mbaye Niang ministre tourisme bu daal taxañ te nële ne ceexaan dong moo ko lal ku jóg ci seen bopp dañoo bëgg a yëngal réew mi waaye kenn du leen ci bàyyi ndaje mañ ci wote woon yaatu woon lool reportage yu Mansour Sow bu ma sëkk la àndal bi muy janook ndaw ñi nga xam ne nag tey ji ñoo koy jàppal tànk ci kuréel gi mu taxaw duppeeku Sénégal 2035 ku jéggi nag dara seddul woon ci ñoom ci bërëb bili ki ci jiitu nag di maître Mame Adama Guèye mi nga xam ne nag dafa jàpp ni tey ji njiitu réew mi dafa taxaw rek taxawaayu luubal élection yi lée matalagul sax parrainage bi après mu ni bàyyi na day jàppale ci keneen ñu ci bari dinañ bàyyi ñu ci bari dinañ bàyyi parce que mataluñu parrainage ñu ci bari ñi ngi nax nit ñi naan leen woy déposé naa caution wax ju du loolu du déposé caution da ngay matal ba pare après nga am programme nga dem wax ak sénégalais mais yow commencé guñ sax nga ni ñii sàcc nañ li tax ñuy wax ni que ñii sàcc nañ mais ñun ni ñuy defee ay sondage ñoom noonu lañu defee ay sondage nee nañ préfabriqué lañ yor ñun li ñuy dajale ci ay nit fan yii nii ku ko gis xam ni que ñii caaxaanuñu. gannaaw maître Mame Adama Guèye ak kuréelam googule yi ak dox na nemmeekum gi nga xam ne nag doo koy doxal dégmal ko yenn ci leader yu nekk ci wàllum euh, kujje gi léegi ministre euh, du tourisme jàpp na ni rek tey jii léegi kujje googule bari na ci ñuy liggéey rek tey jii ngir na meeral réew mi. parmi les candidats là a qu'ils étaient allés voir des pays pour les armer, pour déstabiliser le pays. Jusqu'à présent, ils sont en train de le faire. Mais pourquoi vous ne les dévoilez pas mais c'est pas à nous de les dévoiler. tontu du forox loolu la fi a ministère de la jeunesse tey Nak nag mu ci bopp ministère du tourisme ba pare nag taxawal kuréel gi mu duppee Sénégal 2035 mme la xam sax ba tey jii lii mu jàpp ni coow li nga xam ne nag dañ koy coow ko ci contrat pétrolier et gazier yi lii ñi nga xam ne nag la seen loxo ñëpp xam nañ leen. Sonko moo ko wax Ablaye Wade moo ko signé moom ak Karim Meïssa Wade tey ñoom ñett ñoo ànd yeneen contrat yi ñu fi am yëpp publier nañ ko contrat boobu moo indi coow li tey jii nii yàlla def na ni ñaar ñi ko signé ak ki ko sumb ñoom ñett ñoo ànd ñi ngi wax. ndaje mi leen nag lëkkale woon na lépp lu jëm ci wàllu ndaw ndaw ñi nga xam ne nag tey jii dañoo séddoo lépp lu jëm ci wàllu tolluwaayu réew mi lii waaye tamit di rafetlu liggéeyu njiitu réew mi président Macky Sall. plateforme Sénégal 2035 ñëw rek ngir Fessel, liggéeyu njiitu Nous mi ñu méngale ko nag ak PSE plan Sénégal émergent jaajëf Mouhamadou Mansour Sow Mambay Niang ci kaw opposition bi boobee fekk na jigéen ñi bokk ci benn bokk yaakaar ne ci diaspora sénégalaise bi ñoom jóg taxaw nekkoon doon bay seen waax ci mbirum parrainage bi indil président Sall daanaka ñetti junni ci ay parrainage ci ay parrain kon di ay signature loolu lépp lañ jibal seen kaddu ndaje cadeau, ci wote woon yaatu woon na lool ba seen nañ ko reporter président bu fekkente ne que dañuy def parrainage yaakaar naa ne ñun dañ ci war a béy suñu daal di ci euh, dugal ci sunu loxo nuñ ko mënee daal di koy xeeb loolu nag donc on a amené plus de 3000 euh, signatures yoo xamante ne de parrainage la te pareeguñu ndaxte sunu objectif di woon loolu sunu objectif incha allah euh, sunu njort kawe na foofu te xam nañ ne dina ko ëpp incha allah mais dañuy ànd loolu léegi nii rek fii ak le 10 décembre bu soobee yàlla di ngeen ñu déggaat ndax dinañ ko mortali ba atteindre sunu objectif bu soobee yàlla ñi nga xamante ne que xëj na ni que dañoo a gis dañuy wax li leen neex rek waaye fi gis ku daj ku làmb daj euh, donc parce que le président fi mu nekk nii euh, li mu réalisé tubaab fakàlla macha allah. président Macky Sall képp ku xool ak ku xoolul sax bu ñu jël sa baaraam di ko ca teg da nga daj parce que président Macky Sall mu ngi liggéey Ila Touba ñu demoon màggali barki démb rek gis nañu ko. bu du ñëwee bu ñu waxee bu ñu waxee du Fatick Kaolack man dama dëkk Kaolack di Saalum Saalum Fatick Kaolack yàqu woon balaa ngay dem Kaolack da ngay aw gosaas wëri boo wàccee sa oto bi dafay pënd nga mel ko aw ci rang-rang président Macky Sall ba mu ñëwee defar na ko nit ñi di ci kër président Macky Sall sanc lu doy nit dëkk muy jam ñaajo kenn ku nekk boo rombee jam ñaajo da ngay fier nekk sénégalais ñun sénégalais de la diaspora aéroport bi naam dëgg la sosu ko waaye moo ko eggali bu nu fa wàccee dañuy kontaan man keroog dama wàcc aéroport bokk ak avion ay ivoirien ñu ne ma mais vraiment le président travaille loolu fierté la pour man ma nekk sénégalais dégg keneen ku nekkul sénégalais wàcc ci aéroport bi di ko sago njiitum réewum Sénégal Macky sàll liggéey na loo géedeet la opposition bi wax ndax kii di El Hadji Malick Gakou moom jàpp na ni liggéey amu fi réew mi askan wi lot nañu laati kaaf sonn lool ma nga woon ca ngeexoox mu ne ak lu mën di xew élection yi bu lépp leeree lu président Macky sàll mënta ñàkk mu ni moom ci boppam ak càcc la mënta nangu ci moom la nguur gi di nas ñu dem ca Ngeexoox ànd faak Mamadou Diop correspondance. ñu jublu Macky Sall dañ koy dóor dóor yu méttee métti premier tour sax du ca génn ki xam ne li ni mel mooy ki jiite grand parti Malick Gakou xam ne ne ndam li nga xam ne moom la fa am ci kaw Macky Sall maître Abdoulaye Wade moom la koy jagleel. Sénégal Macky Sall jeexal na fi du la ngeen wax Macky Sall jeex na ñoo na Inch'Allah, le 24 février 2019, dina gagné Macky Sall ñu Sénégal xam ngeen ni Ablaye papa Ablaye Wad. ma Ablaye Wad, bu le président Ablaye Wad, Gorgi, Gorgi, Gorgi. Malick Gakou Tektine, ci ne fii kenn du fi sàcc lu jëm ci walu élection yi. il n'est pas question qu'on laisse au gouvernement du président Macky Sall et à son régime voler la volonté populaire personne n'acceptera la confiscation de la volonté populaire. ki nga xam ne na fi jëwriñ ci gouvernement bu Macky Sall nekkat fi mu nekk nii situation économique bu réew mi jaaxal nako bu baax a baax ndax kat mom japp na ne Macky Sall dafa jaay Sénégal wa bitim réew. vous savez parfaitement que le président Macky Sall et son plan Sénégal émergent ont fini de vendre le Sénégal. loolu lépp kat moo tax ba Malick Gakou ne Macky Sall dafa wala a able jox keneen koo xam ne mën naa teg Sénégal ci yoonu suqaliku Malick Gakou moomu moo ngi woon fii ci département bu Mbour ngir inaugurer permanence départementale bi nga xam ne moom la ñu tabax ci biir Ngekoox ci biir Ngekoox boobu sax foofu la amaloon benn meeting bu mag a mag. mu doon correspondance su Mamadou Diop ma ñu nekkal département bu Mbour danaan diis ba ca département bu Tivaouane foofee jàpp leen ni ña fa nekkal ndaw APR bokku ci COJER ñoom ñi ngi laaj seenub saam ci nag wi ndax ñoom ne ñu ñoo ak président Macky Sall jàppale ko ba mu fàllu waaye bu baax léegi daal amagunu benn cër du am xëy du ay financement ci projet yi ndaje mañ ci yaatu lool ci kenn ci di Abdul Bamir seen kaddu bala jeex jëmbul fekk na coow la moom jeexagul fe nga xam mooy ca gàddaay ña fa yeewoo seen kàddu jib na ay at ñi ngi xeex ak benn promoteur bu ñuy wooye Babacar Fall ñu gis ñoom daal da leen jaay dooleem jël seen suuf teg ca loxo mënuñ ca lenn waaye seen avoca demoon seeti mbir ma la mu xamle Mohamed El Hadji Diouf mooy li mu gis nii njàqare dëgg la cee jot na yoon teg loxo kin jàpp ni moo def njombe gi di boobu le promoteur ñu teewlu kàddu Mohamed El Hadji Diouf la mu dénk suñu lu ëpp ñetti téeméeri kër jàmbur yoo xam ne ñu ci ëpp ñëpp ay retraité lañ amuñu dara boobu ba léegi ñu ngi jooy ñu ngi xeex ay ati ati at ba daaw tribunal Dakar atte gàcce ngaalaama tëj Babacar Fall ñaari at ni ko da fay ay milliards septembre 2017 ba léegi ëpp na at ba tegal ñaari weer sa waay ba léegi bi taxawal ci dëkk bi Babacar Fall yëpp xàmmee nañ ko muy jaagar jaagar yi waa kii moom kii ku mu yàpp kii am na ku ko jàppale. ñi ko jàppale nag xam nañ leen. ñu ngi leen di xool. moo tax ëllëg atte war naa am. cour d'appel ba léegi ñemewuñu jàpp Babacar Fall. tax na nañu tiit sama gars yi jaaxle. est-ce que sax du jugement bu njëkk bi jeexoon ay milliards. tëj ko jox ko mandat d'arrêt est-ce ko fi jëlee. est-ce que du ñuy beneen jugement ëllëg. yàlla rek xam. waaye balaa looloo am. ñun daal di leen wax opinion bi yëpp adduna bi yëpp yëg ni Babacar Fall bii. ata ngi nii mu dekk ci lu ko neex ki donkaas sigéem te prison la ko waroon a fekk ba léegi kenn ñëmu ko jàpp dañuy wax dañuy wax nag Babacar Fall kan ndax Sénégal dafa am seen ay Mamadou ak ay Mamadou loolu lañ bëgg mu leer ci nag ñaar lañ bëgg mooy ñu jàpp ko ni ko arrêt bi waxee tëj nañ Babacar Fall ñaari at pour yàq kër jàmbur euh, nee nañ ko def euh, nañ ko jàpp mandat d'arrêt article 452 du code de procédure pénale juge bee ko wax mm-hmm. nee na ko yow avant ñu lay atte waroon nga dem kaso bu yàgg mm-hmm. kon nag bi ma la tëjee ñaari at jox naa la mandat de dem tëdd kaso nungu siin ñu ne na dem tëdd nungu siin bu ko deful nag ñu ne ah Sénégal am na Sénégal yoo xam ne war nañ dem kaso ak ñoo xam ne xëy na ñoo dem kaso maître El Hadji ak waa gàddaay di jooy seeni kër yuñ toj ñeneen ñu xëy jooy ba tax ñu amal toogaanu ñaxtu ca buntu ministère bi dénk formation professionnelle mooy ñii di ay professeur EPS ñoom seen bopp ñoo buur dal nañu daal dañoo sonn tàyyi luñ bëgg mooy formation diplômante bu jaax ci yoon ngir ñu ma jot seen ay diplôme na mu tege ci yoon lii la ñuy laaj ci wàllu guddi mel ndaje ma ci woote woon yaatu woon na lool Mansour Sow ma nga ca woon reportage ministère bi yor wàllum njàngale mi ñu duppe nag enseignement professionnel apprentissage ak wàllum caada gi ñu soppaliko rek ab mur de lamentation ñi nag di ay jàngale éducation physique et sanitaire ñoom rek ñoo fi ñëw tey ji di naqarlu naqarlu gi nag mi ngi tënku rek ci ñàkkum euh, formation diplômante bi ñuy xaar nag ay at ba tey. li ñu bëgg mooy que benn maanaam ñi nga xamante ni formé guñ leen ren. ñu former leen ren laa wax waxuma déwén ak après déwén de parce que dañoo ñoom dañoo aay ci waxum projection ñun nag ay waxu projection wax ñu ko ñun joonu joonu la ñu xam parce que lépp la ñu waroon liggéey ci projection def nañ donc li ñu bëgg mooy formation diplômante yi yéeg commencé woon ñu yeggale ko ña defoon examen ñu téye leen ñu jëlaat leen ña nga xamante ni itam commencé guñu te ñu nekk seen droit ba ñu nekkee deuxième année ba léegi donc depuis 2015 ñenn ngi nga xaar ba léegi ñu tàmbali seen formation diplômante. ñeenti at rek ñu jàpp ni dafa doy sëkk ñuy xaar boobu ba léegi mënuñu am lu jëm ci wàllum formation diplômante bii lii ay diggé moom doyal nañ ci sëkk loolu tax nag ñu ni tey jii li dowuñu ci sax ba dakkal lépp lu jëm ci wàllum liggéey buy am fii ci ministère bu formation professionnelle bi. ñun ragaluñu dara. bañuñu dara te lépp lu xeex bi jar incha allahu taala dañ ko def. moyen de lutte dafa bëri donc mun nga ci wax lu mel ni par exemple tey def nañu point de presse euh, tey def nañu benn sitting mais ëllëg ñun bañuñu ba bloqué ministère bi ne kenn fi dugg bañuñu ba jàmmarloo ak ñoom ñoom lu mu leen jaral nañu jàpp ni ñun jaral nañu ko. formation diplômante complémentaire. tey jii nag loolu la ñii di ay professeurs de pays yu nekk nag ci enseignement professionnel soxla formation boobule sax ñu ngi ko tënk rek ci lu toll ci fukki million ak ñeent jamono boobee ñoom di ay professeur EPS nekkee ca buntu ministère ba doon jàmbat seen i ndax nañu seen bool muñukaay moo fees ministre ba naam kàddoom jibul waaye kenn ci ay kàngamam di ay ndawam di conseil technique numéro un moo jibal kàddoom nee na gars yi yàkkamti moo leen jàpp waaye lu fi jor yuuxu amu fi mbir mi ci boppam mu ngi ci taabal ji ñu ngi koy lijjanti kookee wax kàddu yi moo di euh, Siré Ba dénk na kàddu suñu reporter bëgg nañu aussi à la fin que ñëpp ñi nga xam ne ñëpp ay vacataires bu dootul amati système bi ba léegi ñun léegi dañuy arrêté euh, di recruter ay vacataires dañuy bëgg léegi ñi nga xam ne dañ leen di jël si ñuy jàngale dañuy génn directement donc si euh, si école yi ñuy former jàngalekat yi et que donc système vacataire bi ñu mën ko arrêté loolu mooy politique actuellement. donc comme ni ma ko waxee donc euh, ñi fi ñëw tey ñoom ñooy ay ay jàngalekat yi nga xam ne ñoom si affaire EPS ñoom tàggat yaram ñoom mooy ñiy jàngale EPS si école yi ñooñu euh, euh, ñëw nañu am nañu dispositif bu leer nañ mais école bi ñuy jàngee école bi nekk SNEIPS la moo nekk Thiès foofu ñoom foofu la ñuy jàngee ñun fii si ministère bi def nañu euh, démarche yëpp du point de vue administratif dossier yëpp defar nañ ko am nañu documents yi su ngeen bëggee mën mën mën leen ko wan yooyu yëpp ah, yóbbu nañ ko fi nga xam ne foofu lañ ko war a yóbbu et fi mu nekk nii donc ñu ngi xaar ñu traité ko mais yemuñu foofu dañoo dem aussi si école bi foofu dem ak discuter suñuy kii yeneen ministères yi pour waaj dem ñoom ñëpp ensemble ñu créer le dispositif pour que euh, formation yi mën a mën a mën a mën a mën a ah, déroulé wu. c' est vrai que ñoom commencé nañ déjà pare parce que formation bi sur plusieurs années da ngay xam vacataire bi bokkul ak ki nga xam ne dafa nekk directement si biir école bi. vacataire dañ leen di woo euh, su vacance ñëwee su vacances jotee ñu jëlee leen seen école yi ñu nekk ñu jël leen si ay vacances ñu dem jàngi donc formation bi dina dina def ay. ñaar di dem ñetti ñetti ñetti ñetti année ah léegi ñoom loolu commencé na bu yàgg ba pare commencé nañu mais euh, ce problème administratif bu tuuti boobu moo fi nekk te ñu ngi koy ñu ngi koy réglé ak ñi nga xam ne moom la ñu ko war a réglé ginnaaw professeur yi étudiants yi ñoom itam wane seen naqaru xol rawatina waa fag lettre nekk UCAD ñoomi seen kàddu jib na dañu daal fi mu toll nii seen i condition ci njàngin gi tar na lool dañoo daal di dajale lépp ci wenn say daal di koy becci muy seen i jafe-jafeem ci kanamu soxna Adam bi tey reportage go yi di soog a am bac ñu orienté leen ca faculté des lettres et des sciences humaines bu université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru di ñaawlu li nga xamante ni moom la ñuy jànkonteel fi mu toll nii ndongo yi di wax ni fa jafe yi ñuy ngir inscrire métti na lool li ni mel nag dara waralu ko problème technique bu ñu sukkandiku ci ki seen kàddu papier nous nonu di imprimer carte étudiant, yi la mom la au niveau du rectorat nous la pour mettre à la disposition de l'administration. donc ñuy léral tamit que ne administration bi du ci du administration donc ça dépasse même l'administration ñu ci leeral encore une fois di demander encore une fois la patience des nouveaux bacheliers et surtout leur compréhension. Penen jafe-jafe yi nouveau nouveaux bacheliers mënuñoo fexe ba inscrire li ni mel nag li ko lu mooy problème opérateur économique yi nga xamante ni fa la ñuy jaar ngir mën a amal yi la inscription. parce que étudiant bi nga xam ne bi nga xam ne am na bagam ñu orienté ko donc suweem bu njëkk mooy def inscription léegi nag bu demee ba deful inscription bi nag ay facteur moom mooy tax facteur yooyu nag mën na bëri buñ ci mën a wax tamit benn bi ci mën a bëri mooy ay erreur technique yoo xam ne noté nañ ko ci période bi nga xam ne moom lañ joxoon moom lañ leen joxoon pour ñu def inspection pédagogique am na ñoo xam ne def nañ ci war yi wala poste yi wala Orange Money 48 heures ou bien même 96 heures te mënuñu inscrire. ca noonee nag ñoom ñu déposé ay demande dérogation waaye li ni mel amul tontu ba léegi. mu déposé demande de dérogation bi et nous avons eu à on a on a eu à nous signaler que demande yi bëri na trop bëri na foofu noonu trop dépassé na 1000 léegi nak moo tax ñu bëggoon ñaan tamit demande dérogation yi nga xam ne ad ministre moom moo wax nit ñi ñu déposé ko étudiants yi déposé nañ ko mu apporté ci une réponse yi leen nongo nag di wax ni duñu forcé waaye dañuy ñaan ki nga xamante ni mooy seen jawriñ di Mary Teuw Niane mu jéem a saafaraal seen situation ngir ñu mën a am beneen chance inscrire ñu xuus ci wàllum wér-gu-yaram bëccëg bi nu jagleel diabète ci àdduna bi Sénégal ma nga ca biir thème bi nu jël xen mooy ki amee jàngoro diabète naka la ko njabootam war a mën a jàppale ñu gis ni ci am solo ci wàllum paju gi ak bim lu ni mel mooy xalaatu association bi ëmb diabète gi ci biir Sénégal dañ cee wootoo ndaje mu yaatu ngir bëgg a dugal boobu lépp xibaar ci kër yi ba ci ne ka nga am ni ab malade mu am jàngoroy diabète noo ko war a mën a jàppale lu ci am solo la reportage Adjara Ndiaye. njaboot gi lu am solo la ci fajum jabet ki li loole sax tax ñu tànn thème bile ci at mi ba bi jagleel feebarum jabet ci àdduna wërngal këpp ñi nga xam ni ñooy yëngu ci wàllum wergu yaram nag jàpp ni lu am solo la ngir gën a ñoñal jegeñaale yi ci pajum feebar bi bile. nit ki bu amee jabet xëy na ci famille am am na ñeneen ñi nga xam ne mu roon nañ mën a am euh, feebar bi ci aar ko ci. xam nañ ne diabète lu ci bëri wàll bu ci bëri mu ngi nekk ci ni ñuy dunde lekk bi ñuy lekk bu sellulee wala boog du ñuy tàggat suñu yaram yu bëri donc famille bi dafa am foofu importance bu rëy rëy ndax mun na jàppale nit ki te mun na jàppale ñeneen ñi nga xam ne amaguñ diabète ci aar feebar bi. bu ñu sukkandikoo ci kàddu professeur Seydou Nourou Diop taxawaayu wajur yi dafa am solo lool ci ndaw ñi nga xam ni dañoo am bieli feebar. tey jii. xale boo xam ni tam jabet tàmbali ci moom bala jëye di am ñu indi ko hôpital ñu seet ko xam ngeen ni bu jëkkoon xale yi cëpp buñ masaan am jabet xamu leen ko xëy na mais man laa leen ko wax ci coma diabétique la ñu daan indi indee hôpital mais bi ñu tàmbali 1980 fii bi may def sama thèse man ci jamono boobu amatuñu liñ naan coma diabétique bu ñu hospitalisé fii lu ko waral mooy ni xale yi dañu leen di teel a indi bu ñu leen teel a indi nag ñu jàngal leen seen jabet jàngal ko parents yi. jëwriñ ji ñu dénk wàllum wér gi yaram nag fas seenee taxawal ay stratégie yoo xamante nii dina wàññi nekk ni feebar bi li. ci lu muy gën a avancé euh, feebar prévalence bi day gën a yokku soo jëlee yi nga xam ne am nañ diggante euh, ñeent fukki at ak juróom euh, jàpp juróom fukki at ak juróom-ñeent seen prévalence mi ngi si 7,9 pour cent. soo jëlee ñi nga xam ne am nañ diggante euh, juróom-benn fukki at ak juróom-benn fukki at ak juróom-ñeent seen prévalence mi ngi 11 pour cent. donc ñi ngi ñaax ci journée mondiale bi ñu yeeti askan bi ci région yëpp 14 régions Sénégal pour que nit ñi ñu am facteur de risque yi ñu def dépistage ñu defee dépistage euh, ñu lawal ko comme ça ñu mën leen teel faj du ñu am ay complications ya nga xam ne euh, faj bi day dafay dafay cher bu baax a baax comme niñ koy defee fukki fan ak novembre Assad nak daal di nous ñi nga xamné seen xel dafa jabet ngir ak ñi nga association bi nak inauguré ci bobé, maison éducation sensibilisation jabet jaajëf soxna Ajara Ndiaye xibaar yu wéy dikk ci mbirum gàmmo gi nuy waajal Tiwaawoon ñu nga ca wàccaay ga ci bépp anam fexe ba dëkk bu sell ba sell ci wàllum zahir maanaam lépp lu fa ne ci xeetu mbalit noonu ko fa euh, jëlee lii moo tax a jog kànga wi ŋànk ku xel gi dox ci wàllu guni mel dañ cee sax woote woon ndaje mu yaatu ngir waxtaan lu gën a xóot ci Tiwaawoon nu su mën def ba lépp tegu ci yoon laata gàmmo gi diglu kenn ci kàngam yi bokk na ca sëriñ Cheikh Tidiane si dénk na kàddu ñenn suñu envoyé spéciaux nekk ci Tivaouane. Ah, di lu taxawaayam fii ci liggéey bii nga xamante ni daf ñu ko dénkoon ngir ñu mën a eh, def lu ñuy wax investissement humain fii ci Tivaouane maanaam nit ñi jël volontairement seen doole. seen alal ñëw set seetal dëkk bi moom mu jàpp ci nag ànd ceeg suñu euh, sœur suñu xarit euh, suñu mbokk taalibe di Aïda mbenn Diop ñu gën ko xam ci Aïda Al ndax cofeel gi mu amoon ci sëriñ Abdoul Aziz Al ñu ñëw tey ngir seetal dëkk bi lépp loo xamante ni dafa laajoon euh, yéwénal ci wàllu set defar nañ ko jële ko ci xorom yi nga xamante ni ñoo nekk ci boori jàkk yi jaarale ko ci dëkk bi yëpp ndax Seydou Diame dama ñu jox ay camion jox ñu ay engin ngir ñu mën a euh, seetal dëkk bi fépp foo xamante ne ay gravats mi ngi fa ñu tegg ko lépp loo xamante ni day mën na indi ay gaañ ci euh, gàmmu gi ñu mën ko ñoŋal ba nga xamante ni nit ci dañ mën a ñëw ci jàmm delluwaat ci jàmm dëkk bi am set dafay wax léegi ni sëriñ bi ah ñun amuñu fi kàddu sa yow lañ doon liggéey wala boog sa dëkku maam lañ doon liggéey ànd ci ak yow nga jël sa alal jël sa doole jox ko sëriñu daara yi ndax lii yaa ñu ko santoon ah bi ñu fi dajalee sëriñu daara yëpp dama leen laaj lan mooy seen tawat ci dëkk bi ci wàllu cet ñu ne ñoom ñàkk moyen moo tax bi ma ñëwee wax la ko nga ni ma seetal lu mu laaj ci moyen ñu xool naka lañ koy xëccee indi bu ko defee ñu ànd ceeg ñoom liggéey ndax du loo xamante ni ñun ñooñu du ko liggéey seen i place dañu xam ne dëkk bi ñun ñëpp ñoo ko bokk bu liggéey amee dañuy woo dëkk bi ñu xool naka lañ koy mën a àndale bu laajee moyen nag ñu wuti ko loolu la di Jamil def ànd ak suñu sœur soxna euh, Aïda Mbène ak euh, benn ONG bu ñuy wax prospective 50 nga xamante ni li ko tax a jóg mooy liggéeyal euh, Tivaouane xibaar yi wéy ci beneen mbir jàppaleen ni bis ni démb fukki fan ak benn novembre euh, bu nu fàttali ko ci ginnaaw ci atum 1902 ci la Serigne Touba euh, jóge woon ci bi tubaab bi yóbboo ci exil ginnaaw juróom-ñaari at lu ni mel tax na démb Serigne Modou Kara màggal na bëccëg bu ni mel woona ñu bari ci ay taalibeem waxtaan ak ñoom am na it fu mu bëgg jëm ak ñoom ci tasaare njàngaleem Serigne Touba ndaje moomee Abdoulaye Ndiaye ma nga woon.

ci atum 1902 fukki fan ak ci novembre. xam ngeen ne la 11 novembre 11 novembre 11e mois 11 et 11 22 le mooy mba moy mooy 22 moy mbaké moy victoire ci bir victoire ci biti nattu bu ñew jall ñu ne ko sentul beneen nattu yi tegaloo di tegaloo di waye bobu fekkoon na mu am ndam ba noppi soog di dem xam nga am ndam soog a dem loolu moo waral màggalu Tuuba defuñu ko def luwu ko ci bis bi mu amee ndam ci retour bi déedéet bis ba mu amee ndam ba muy dem ci la defe màggal bi ci jamono bi nga xamante ni ni àdduna wërngal këpp ci gox yi fasanti ko fitna dafa yëngu jafe-jafe it am ci fànn bu ni li leen nag ay ñaan def ci am solo lu nu mel waral général bamb bi di sàkku juróom benn fukki junni bambiste ñuy jibal kàddu gu nu mel sàbbal yàlla sunu borom waaye ngir nag géeju ci moxjizaat yi nga xamante ni Cheikhul Khadim am na ko ci borom bi Mawlana tabaraka wa taala nous tendons la main à la jeunesse sénégalaise tout entière ndax ñu mën a propager ñu mën a ànd nekk benn diaplenté pour me véhiculer la miséricorde. Bien que hamne sering tu ba moko don ni chiyon tu bi alayhi salatu wasalam. Sufeke doy na lien yen À partir d'aujourd'hui, 66 000 bambis de 14 à 25 ans. ci ay xale góor ak jigéen 66000 laa soxla. ci nag mbooloo mu takku bëri lool ay taalibi moo xam murit wala soppe ñëpp nag ñoo dalal Cheikh Modou Kara Mbacké Noreyni ci Grand Yoff ci bés bu am solo bile di jamono boo xamit nag lépp ci fàttaliku ak it bëggi ñibbi sukk Seexul Xaddim Sëriñ Tuubaa Xaddim Rasul ci Gabon jaajëf Abdoulaye Ndiaye jaajëf tam yéen ñu doon bàyyi xel seen télévision DTV li moo laf laaj ci xibaaru marax yi dina amaat xabaar incha allah niskis bu 20 heures jotee ci français lay doon Mouhamadou Diallo moo koy faram-fàccee ñaanal leen ñi bokk fanaan jàmm ngeen di wéyal sunuy programme ci DTV illa lixa tomate podor, huile j'adore, Sénicartour, Sénico, ak TNT ba Escaf ñoo gamuk jam. Assalamualaikum kon nag mbokk yi ñu ngi nuyu ñëpp euh, kii bëgg a waxtaan ak yéen seen mbokk la muy mbokk Dam bi ñu koy wax oustaz Mohamed Gueye te gën a siiw ci oustaz Dame Gueye wala ñii ne Dame Gueye euh, dëkk Kaffrine juddoo sañ ci euh, suñ bañ ci bañ ba ak ci lañ soxlaal ba yàlla def nag ba 83 lañ dikk ci pays bii nga xam ne mooy pays Cheikh Ibrahima Niass ci Fatick ba ñu firi al firi alquran entre Xadir Moussa lu tax ñu àndoo moo ma dugal ci pays bii nga xam ne mooy biñ nekk si nii. léegi nag ñun ci loolu lañ nekk ñu ngi jàngee Saalum moot leen jàng Ndar bañ jàngee Ndar foofu gannaaw gi ñu ngi tarbiya 83 ah ba léegi nag 83 ba léegi nag. dama jël sama programme dañ ma tuddee géy luxa ndaxte alhamdulilahi rabil alamin téere yi nga xam ne mooy fànnu grammaire fànn luxa fànn yooyu yëpp dama ko doon jàngale euh, soixante euh, soixante euh, six ba tey maa ngi koy jàngale ba fii tey laa ko mujj jàngale tey nag li ma ci jamono bi mooy nit ñi dañuy dugg ci tariqa yi te borom tariqa yi fi lañ bindoon ñu ne ko fa ñukk day indi seen jikkoy bopp man nag naa jël sama dund man jeexal ko ci leeral ñooñu téere yooyu yëpp amul bii waaye nag bàyyi ñas nag mi nga xam ci laa bokk ma defal ko bosam spécial ak tariqa tiyaniya jaayir maa neeg jaayir saalak yooyu laa laa jël pour de ko firi nit ñi xam la ñu tax lii musiba mooy jëxlu ah man kena pour dundal su bi nga xam ne amaatuwul jëxlu kon nag bàyyi buñ dikkee fekk li dee mu de ko dekkal ñu ne dañu dikk ci loolu de ko dekkal mooy dal xam-xam rek mooy suñu it lii daal moo ñu dugal ci lii ba amatuñ beneen liggéey lu mooy lii rek ah ci bàyyi gàmmoo nag baat bi laa lay firil xam nga nit ñi dañ naan gàmmoo gàmmu ni ko nit ñi yàqee bu njëkkoon gàmmoo dañ wax ne nañ dem ca gëmookaay ba ndaxte boroom xam-xam yi dañuy toog yu sell wecc ni ñuy dikk ñuy waxtaan waxtaan yu leen yokk ngëm ba mu jigi ñu tuddoo ko gëmookaay ba gëmookaay mooy gàmmookaay ñu nag